c'est c'est xam nga c'est très compliqué euh, parce que damay fàttaliku rek euh, arrêté Ousmane Ngom boo mu posé question bi mm-hmm. euh, bi ko bi ko ñi nekkoon ci nguur gi mm-hmm. tey ñu nekk ci opposition bi tegee ñi nekk ci nguur gi tey te nekkoon ci opposition bi dañ ko doon ŋàññ mm-hmm. pourtant bi ñu ñëwee ci nguur gi ça fait onze ans léegi ak lu teg. ba léegi dindiwuñ ko. pourtant dañ ko doon ŋaññ parce que newoon nañu c'est antidémocratique c'est tout ce que vous voulez critiquer nañ ko façon bu nekk. Mhm. waaye question bi mooy te loolu bëggoon naa vraiment euh, intellectuel yu mag yi ak boroom xam-xam yi ñu waxtaan ci. ana lu tax loolu ñu doon ŋaññ bi ñu nekkee ci opposition bi onze ans après que ñoom ñu ngi nekk ci nguur gi changé wuñ ko dindi wuñ ko parce que looy ŋaññ ni baaxul boo ñëwee ci nguur kay xanaa doo ne amoo temps pendant onze ans. pour dindi ko parce que yow musoo d'accord ci loolu euh, la preuve li ma doon léegi waaye bu fekkee ni ay manifestation à la base dañ ko war a tere c'est d'une évidence mais est-ce que c'est parce que nii rek euh, du lu ñu war a tere que ni forcément manifestant son bépp bu am dañuy réfléchir rek de. Mhm. dañ ko war a autoriser. est-ce que toutes les manifestations sont autorisables wala kan moo war a euh, euh, évaluer ni manifestation bi tey dañ ko war a def dañ ko war a nangu bii duñ ko nangu. mais c'est l'autorité. c'est l'autorité ouais. mais autorité bi si yan base lay teg alors que nee nañu. manifestation kenn dañu ko c'est régime déclaratif waaw léegi lu tax ñu mën a toog à un moment donné est-ce que c'est parce que ils sont de mauvaise foi ou est-ce que c'est parce que ils ont véritablement bien raison d'avoir décidé que ni manifestation du am parce que raison yi ñuy wax mooy raison yu valable on vous question ban gis-gis nga ci am daf may xaw a jaaxal très honnêtement parce que Euh, euh, selon que maa ngi nekk ci euh, nekkuma ci nguur je peux comprendre que ni manifestation dañ ko war a bàyyi di ko encadrer di ko gérer mbir mi jeex surtout que ñi nga xam ne ñoom ñoo koy tere am nañu suffisamment de force. Mhm. pour dem préparer pour nan dañuy dem guerre. ah ñoom dañu ragal ne maanaam risque trouble à l'ordre public. alors trouble à l'ordre public bu fekkee yow xam nga yan trouble la war nga mesurer say capacité pour xam ndax mën nga ko dékku. wala déet ci manifestation boobu nga anticiper ci mbir mi pour war koo mën a nangu war leen ko mën a accepter puisque xam nga lan moo nar a créer trouble bi normalement ils sont censés maîtriser ces troubles là parce que préalable préalable préalablement eh bien ñoom sóor nañ ñi trouble bi fan la war a jóge parce que am nañu les informations suffisamment d'informations pour mën a anticiper ci loolu mhm. lu tax duñ ko def wala est-ce que c'est parce que xam nañ ko que en réalité dañ ko mënul dékku moom moo tax te loolu man mënuma ko gëm mënuma mhm. gëm ni ñoom mënuñu dékku trouble yooyu ñuy wax noonu dafa war a am pour man mënuñu ko bañ a dé mën a dékku parce que war nañ ko mën comme kon pour yow c'est de bonne foi ñu interdit les manifestations bah un coup je pense que c'est de bonne foi honnêtement un coup je pense que c'est de mauvaise foi mhm. est-ce que nekkul un jeu du chat et la souris